motax luñ ci jang señ muntaxa neen luñ ci jang doyut khalaqa sadagu men mawahibun nafi'a so jele qad faka kabla qad bath fadla fadurru walla wan naf'u ja'i jëlal xuruf yu jëkk ci xàpp bu nekk xadd fakk kabla xaaf moo fa jiitu xaaf téeméer la du noonu xadd basa fadla xaaf moo fa jiitu xaaf du téeméer mu doon ñaari téeméer fadduru wala fàll du quatre-vingt mu doon deux cent quatre-vingt wa nafu jaay waaw mu jox la deux cent quatre-vingt-six bindal mawaahibu naafiu soo ko addadee loolu lay jox kon xas bayit boobu dafa bokk ci mbuuti mawaahibu naafiu te nit ku nekk ci xat-xat ndax loolu mënta ñàkk ci dundu doomu aadama suñ borom waxee sëñ allah baadu usrin yusra ñaar ñooy day jaabante ci nit rek jëlal bayit boobu adat sa tur soo ko mënul nga jël li mu ab yaatu mawaahib muy téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn di 166 ab yaatu nga def ko bayit boobu te jàpp ko léegi jé jéng yi jéngoon say mbir lay suñu borom di dajjil boppam yàlla du ci wolu ken mo koy dajjil bopam du yónnee ken te so xolé qasida gog jeulal bay bi bizil hurubi jalil kurubi nuril arib ma ma xiriyaay daf lay jox 2064 nga gis ni 16 latif la demal ci mafatihul bishri ñaata latif la ci sëñ bi tuddu fukki latif ak juróom benn la te latif dafa doon tur wu yéeme nee nañ latif am na junney bunt bunt bu nekk am na junney leer te boobu ba léegi bu ñu sosee aadama ba léegi suñu jaam ilaa yawmina haza benn leer lañu nekk ci benn bunt ba léegi jeexagul ngeen gis tur wi nu mu yéeme wax bi ñuy wax ngeen di dégg ñu koy dégg lutfullahi la doom bu nekk ci biiru ndeyam di ci dund ci lu ndeyam di dunde lutfullahi la nee nañu nag suy lekk ñax ñax yu am ay dëkk te dég yi du ko jam latif bu muy tudd moo tax ba loolu am te turu yéeme la ndax soo ko wëlbatee satal la lay jox di waaw kon turu woowee jamukaay la soo xoolee ba tey latif ñeenti xuruf yi ko composé soo ko wëlbatee dangay gis li fi tey waaw jooni jooni li fi tey am na sirru bu méngool ci latif muy duratul yatim soo ko wëlbatee ba tey nga gis ni falu tey waaw taa tànk <laughs> ak yaa falu tey loolu soo demee ba tey dañuy gis mulku latif mooy régler loolu nga wëlbati ko waat ki ñun la téyel fii waaw loolu yëpp ci pour wan la tur yi nu mu yéeme nga xam tur woowu mooy daw ci biir mawaahibu naafi bokk na bokk ca la cay daw ndax dafa bañ ba indi ismu baatin tur bi mooy yaa muti dikk na ci ñeent yoon ci biir mawaahibu moo tax mooy des na ci fale des na ci folle des na lijjanti léegi joni joni léegi sëñ Xaadim Mbàkke yan na sunu borom bi yokk leeram conférencier dafa ma fekk may jàng mooy bu mu ba pare mu jël ko jàng daan ma naat fekk këram bu ma ñëwee mun ma xam nga xasida gi man ko déedéet Mbàkke mu ne xamoo ci dara man ko déedéet lu dul jàng teg rek mun ma soo ko jàngatee ba inni aqulu wala yamilu lii ma yasuulu ma al jiraayi mun ma taxawal nga fas fa sa soxla man ko waaw mu ni lu ci topp man ko yaa zal jalaali yaa mutaali yaa xayrawaali ajib duaa yi mu ma nga def ko li mu kun fayakun àggale xasida gi day mel nga fekk sëriñ bi toog nga jox ko sa doléance mu nangu ko te faj ko nii la ma ko waxee mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen mu ne ma nag sañ ngaa fas lu jiitu ngay jàng waaye soo xasee ba jàng na bul fasati dara ndax fasu sëriñ bi moo ëpp doole sa bos turam nag mooy sulumul firdawsi dañuy wax ni xasida sindidi bi en tant que fidèle internet bu Adiana TV li may njëkk a def mooy su ma ñëwee mooy Abonnez-vous à la chaîne bi ma partage ma vidéo likez like en tant que fidèle internaute d'Agenet TV la première chose que je vais faire c'est de s'abonner ensuite liker les vidéos et de les partager et même si possible de les proposer à des amis via les réseaux sociaux Facebook WhatsApp etc Telegram